ñaari weer yi yëpp nga xam ni umpul kenn li fi xew muy suñu diggante entre ñun ak Ousmane Sonko bu Pastef ku sant nag dangay sant ña nga àndal xeex bi di xeexu ngor xeexu dëgg xeexu njub ñun de foofu lañ ko teg ñii la ci suñu boroom booleel muy avocat yi nga xam ni muy guddi muy bëccëg ku ci nekk xalaat nga pour ñu def ko ci anam bi mu gën a méngoo ak yoon waaye tamit ku ci nekk xalaat nga pour ñu def ko ni mu gën a méngoo ak ngëm-ngëmu suñu réew particulièrement suñu aada ak suñu diine muy lu tegu ci dëgg tegu ci njub tegu ci ngor ki ci njëkk mooy ñoom man duma def comme keneen ki may xëccool man dina damay respecter seen régle yi ngeen di fonctionner ñoom ni ñuy ni ñuy ni ñuy nangoo ni ñu leen di présenter du ordre lii ak kii mais ki gën a mag mooy jox mooy jiitu keneen topp ci donc ñu commencé ko par maître Baboucar Cissé di avocat fii ci barreau mu Ndakaaru teg ci euh, maître Olivier Sur. Bon, de vous présenter. Je comprends le Wolof. Ah, ok, Maître Olivier Sur, di avocat bâtonnier bu Paris. Maître El Hadj Diouf moom du kenn ku ñuy présenté ak maître Ousseynou Thiam Ousmane Thiam di avocat fi ci bâtonnier bu Dakar bu bu Sénégal maître Baro bu Dakar. maître Adama Fall moo nekk nii ki nga xam ni nag mooy euh, moo ci mooy caat bi di maître Souleymane Soumaré caat bi waaye tamit caat bu am taxawaay caat bu mat caat maître Moustapha Dieng ak maître Ramaba tudduma leen parce que yàlla daf ma booleeg ñoom ci leneen ku kuy jàll ay jafe-jafe que la cay gunge ca xaarul dara ci yow teg ko ci kóllëre teg ko ci relation bu sincère teg ko ci dëgg comme li ñu seq ak ñu bari fii nii ba texal leen mu ñëw Rama jërëjëf Rama merci beaucoup maître Rama Ba merci beaucoup yal na la yàlla fay maitre Moustapha Dieng yow mag nga ci ñun pour dooree yëf yi umpul kenn ni que dañoo xëy bés Ousmane Sonko def point de presse daan ni am na wax na lu ko njëkk ñor am na ministre bu mu gis démb assemblée nationale avocat yi di ko toroxal député yi député yi di ko toroxal ba génne rapport mu ni rapport boobu du dëgg waxul dëgg rapport boobu am na rapport bi ko épinglé rapport IGE la daldi yëkkati téléphone am liir di ñun tey jaaxle bi ñu jaaxle mooy moom fan lay jëlee ak fan lay dence ñun tey li ñu jaaxal mooy kan moo koy jox waaye du ñemew ñoo miim parce que moom lépp tey na ko ci loxoom ah yàlla bi dara tëwul ñu dajaloowaat fii defe naa ci beneen salle bi la ñëw réunion ma ni leen Ousmane Sonko waxul dëgg Ousmane sonk bu waxee dëgg na génne rapport Ousmane Sonko bu génnee rapport man dinaa tënk samay loxo bopp ma dem jox sama bopp yoon parce que ci biti du sama place boobu ba léegi li ci am bu leen neexee ñu bañ koo nettali parce que ñun ñëpp ku ci nekk seede la ci waaye wax di fàttali dafa baax wax di féddali dafa baax parce que loolu mooy taxawaayu gor loolu mooy taxawaayu nit ki baax bi ma koy def politique taxul woon ma def ko bi ma koy def utuma leneen lu dul setal sama der bi ma koy def xalaatuma leneen lu dul bañ a utal sama njaboot ak samay doom woy bu ñaaw parce que man sama woy jur utaluma woy bu ñaaw ba tey ma mën a taxaw jàkkaarloo ak nit ñi wareef gi war baay ci doom wareef gi war baay ci kër wareef gi war baay ci jabar wareef gi war mag ci ay rakk wareef gi war doom ci ay waajuram ci lu mu fi def wareef googu moo commandé ba lépp lu yàlla maye lépp lu yoon maye dinaa ko def pour setal sama der ku ci gis leneen ci kanam tuuti di ngeen xam ni que yàlla day àtte bi loolu amee ñu dem tribunal lafa doon am yéen ñëpp ko gis wër-wërloo dàqantoo mais tey dinaa ci wax loo xam ni comme que yoon àtte na aujourd'hui il est établi que Ousmane Sonko fenkat la c'est établi c'est acté part un acte de droit mën nañ wax biñ ko njëkkee woo pour wax leen rek biñ ko njëkkee woo mu dem dik ba mu demee dik premier jour bi daf ni xamul lu ko fi indi bañ ko waxee li ko fi indi mu ni mi ngi dem jëli firnde yi moom Ousmane Sonko mu ni nañ ko may mu dem këram jëli firnde yi te suba sa mu ñëw ñu laaj ko mu ni naam lii moo ko wax waaye sax dafa juum waa ji ne ko waa ana firnde yi mu ni firnde yi moom dafa juum ci IGE ak IGF IGF la bëggoon wax waa ji ne ko waa d'accord léegi rapport IGF bi indi ko ca mi ngi yor classeur mu ne ko bu ñu demee ba ca juge ba ca moom mii sax defe naa wax ko ni ko bu dofee bañ dem ca juge ba li koy dal dina gën a garaaw li may wax nii yëpp ci PV lañ ko wax avocat yaa ngi nii toog bu fekkee ñeme na ba am fitu dem procès dina gis dinañ wax leneen leneen yeneen wax yu dul waxi rapport daal di jël crasseur am ay preuve am ak firndeem dem ñi ñoo xam yoon ku ci am laaj nga laaj ko nan lañ ko cité man defuma procédure droit man seetal sama der laa bëgg ak wan askanu Sénégal ni que kii fenkat la bi loolu dooree mu jóge dig ak citation bi waa këram yëguñu ko ay xaritam yëguñu ko képp ku mu nekkaloon yëgoo ko da ko doon nëbb ba muy dugg dig da doon nëbbatu da doon nëbbatu di raser mur yi pour wax leen nit ki ngeen nit ki kiñ ko séqal nan la mel dama leen di wax firnde jour ba mu wuyi ji dig lépp lu yeew yi amoon responsable politique parti bi mu bokk lépp lu amoon ci responsable politique jour boobu yaa ngi buntu dig di jàppale ñaari député yu bokk ci ñoom yuñ jàpp Ousmane Sonko lëmasu kaalawu nëbbatu ni kaña dugg biir dikk seetiwul sax député yi parce que ñemewul wax leen ko donc ba ñuy commencé te doon nëbbatu defe ni mën na koo lijjanti bañ ku ko siiwal parce que moom wóor na ko wóor yàlla ni que li mu wax dara amu ci ñu jóge ci loolu ñu site ko bañ ko cité mu xam ni bay woy nu mbuus mu commencé naan ay yëguma ko ay convoqué wuñ ma yàlla seede na ni que procédure bi amul dara luñ ci def loo xam ne dañ ko def ndax man dama am ndomba tànk wala dama bokk ci parti politique lépp ci yoon lañ ko teg mu xëy suba teel ñu convoqué ñu le deux mu xëy suba teel daan ni moom jotul convocation huissier bi ko yóbbuloon convocation bi muy wërloo wër ak moom bu demee siège woo ko mu ne ko maa ngi sama kër bu ñëwee këram mu ne ko maa ngi sama siège bu ko woowee mu ni ko maa ngi Ziguinchor bu génnee leneen lay wax ci mujj ki mu ni ko jox ko sama gardien moom moo wax ñu jox ko ko le mu am fitu taxaw ci sénégalais yi ni moom moom gisul convocation déggul convocation mbir mi dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ cee dugg dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ ciy xame bari na ci ñoo xam ni amoon nañ cofeel ci moom wala foogoon nañ ni que lu muy wax am na bi ñu yëgee li xew ci jëf bi xeeb nañ ko donc man xeebuma liñ ci am am na ñu foogoon ne que lépp lu mu wax téye na ko yor na ko ba ñu yëgee am firnde ne lii la def ak huissier yi ñooñ dañoo génn ci moom man de preuve laa laajoon ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko indiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon lu am la léegi nag man damaa gëm sama yoonu réew damaa gëm kuréel yi téye sama réew damaa gëm institution yi téye sama réew damaa gëm république donte nag jullit akkan la mais dama gëm république parce que ci loolu la ñu nekk nit a ngi nii koo xam ni moom nee na la mu gëm booy jiiñ nit da ngay téye firnde ba doo ko jiiñ ba pare sax dem wuti ko nit a ngi nii koo xam ni jiin na bàyyi jàmburu yaay jàmburu ni dafa luubal vingt-neuf milliards ca moom am na firnde te mu wóor ni ko waxam dina egg fu keneen egg loolu moo tax ngi ñu mën fi gis ku mel ni kii parce que waxam fa muy egg jot nañu wax fa waxam di egg fenkat la egg fa tey ba fii ñuy waxeeg yéen ñu ngi sant yàlla parce que yàlla may nañu ndam ci moom dañuy sant yàlla yàlla may nañu ñu setal suñu der yàlla may nañu bépp tuuma bu mu wax ci yëf yi nii yàlla wane ni que du dëgg ay waxam wane ne di dëgg waaye tey yoon bi ñu gëm tey am na ni mu jógee nag mooy gàkkal suñu kuréel yi amul corps constitué bu Ousmane Sonko saagawul juge yi ñoo bokkoon ak moom classe ñoo bokkoon ak moom école moom moo leen gën juge yi baaxuñu kenn xamu ci dara kenn du ci liggéey ordre des avocats dañ koy xeex parce que dañuy suspendre ay avocats am Sénégal euh, bëgguñu lu jub parce que moom bu waxee dara euh, euh, nit ñi dañ ko war a def ndawu Sénégal da ngeen irresponsable parce que léegi bu leen woowee kaa leen ñu toj kenn du génn donc ay defeyaa ngeen kooku mooy Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane tey ngoram mayu ko mu génn wax dara justice parce que jàpp na ni que moom comme que yaakaar na ni yaakaar nag laa wax loolu dinañ ci dugg après borom xam-xam yi tamit dinañ ci dugg war na mën a présenté wu moo tax mu tiit xamul lu muy def moom ak ñi mu àndal ak ñi mu taxaw damay wax fii tey Ousmane Sonko fenkat la ku ko wax ci dëgg nga ko teg parce que yoon àtte na ko tribunal nee na Ousmane Sonko fenkat la tey Ousmane Sonko dencalul dara yorul benn preuve ku ko wax waxoo wax nga dëgg ku ko wax juumoo tribunalu Sénégal àtte na ko tey Ousmane Sonko dégâts yi muy créer ci dëkk bi institution yi muy saaga wane na ni que lam doon wax méngoowul ak lu am weneen fenango suñu mbokk yi nañ delloo ci xel yi nit a ngi nii koo xam ni ba fii mu egg si tey nit ñi jàpp ni egg na fu kawe ba opposition bi ñenn sax ragal ber seen yoon assume seen bopp jàpp ni que moom day gañe moom day nekk président ñu dem topp ko ba mu leen yi xëcc ci lu dul dëgg juum ngeen juum ngeen parce que ay fen mënul dëkk juum ngeen parce que fen du mës féete kaw dëgg donte yéeg ba day kawe rek mais daanu bi day gën a metti Ousmane ko daanoom commencé na daanoom commencé na parce que tey képp kuy sénégalais xam nga ni lam daan tiitali nit ñi munu ko boobu ba léegi mi ngi woote tey képp kuy sénégalais xam nga ni jeunesse bi muy woo ak ñi ko topp ci coobare boppam la pour yëfi boppam kese woowu leen pour réew mi jub woowu leen pour réew mi dëggu woowu leen pour defar réew mi woowu leen pour programme da leen di woo parce que moom dafa tiit def na njombe yaakaar na ni que yoon day dal ci kaw mu def ko ñun ñoo ko gën a doon gor parce que magistrat yi muy saaga man démb man ak samay avocat ba ñu duggee ci tribunal bi gis beneen magistra waxuñu parce que dañoo nangu ni que fii yoon lañ fi wax saagawuñ kenn tonte mënoon nañoo wax parce que nag ñoo ko fa indi mais kenn dégguñu parce que dañu jox cër suñu yoon ay avocat lépp lu ñu def dañ leen di jox cër ba ca war ci beneen dossier bu maître El Hadj bi nekk am na leneen déggu leen kenn wax parce que nangu nañ xam nañ ni que hors des avocats ils sont autonomes rappel euh, bi gën a gudd bi mu am ci suñu procès un mois ordre des avocats moo ñëw wax ak juge bi ci affaire boo xam ni reteniroon nañ ko ba pare ñu nangu kenn dégguñu ñu wax parce que dañoo respecté kuréel yi téye réew mi wàññi leen wàññi suñu réew la wàññi leen doyadil suñu réew la euh, gàkkal leen gàkkal suñu bopp la mais moom boppam rek moom boppam rek moom bu juge bi àttee juge bi baaxul mais loolu nag day jeex te bu defee nee ni rëcc na rëccul rëccagul de jeexul de affaire bi am na deuxième mi parce que li ñuy wax lépp ay wax yu dul dëgg la dëgg naa leen ñii naan non Mame Mbaye li muy warante mooy police ak gen police ko jàpp gendarmerie jàpp ko rapport ba ci deuxième mi bi donte amatul droit man may naa la droit boo indee rapport bu dul sax bu IGF boo indi bu wax ni que man def naa lu dul yoon sàcc naa alalu askan wi ma dem ci kaso bi yow ñemee wax loolu ca boo ma ko waxee man man ma génn lu la yóbbu yow wax dëgg dafa jot ci réew mi waxante dëgg dafa jot ci réew mi naxante ak naafeq ak ragal dafa war a jóg ci réew mi benn nit mënta toog li mu def ci àddunaam yépp ci ay fen la ko sampe yow laay njëkk a jël seede assemblée nationale ba ngeen nekkoon plus fort la fa duggee wax ji di tax yéen ñi ngeen xam ni actualité moo leen intéressé ak peut-être événement ak lu luy indi buzz li mu njëkk a def mooy wax ni que député du fay impo muy ay feni kese képp kuy député xam ni ay fen la Sénégal ñëpp xam ne ay fen la mais nit ñi ñenn ñi rus ko wax ni que lii da nga ay fen la ñenn ñi ragal ni que dina ko buñ ko yóbbee lii da leen ci dal lii ay fen la mais foofu la commencé ci ay fen la commencé ascension wu Ousmane Sonko ça a commencé par le mensonge et ça va se terminer par le mensonge déclaration bi njëkk a def bi ko nit ñi naan député bii kan la leneen la leneen la déclaration boobu mooy fii assemblée ñun moom ma nga fa inspecteur des impôts la mu ni député yi duñ fay impôt réew mi yëpp xam ni du dëgg mu jóge fa daan ni député day leen jox 10 million mu jóge fa jiiñ baayu jàmburu 94 milliards mu jóge fa dem négocier pour nangu donc moom addinaam lépp ci ay fen lu ko yóbbu tey alhamdulilah man établir naa ci dëkk ak këyitu tribunal ni ka fenkat la parce que yéen ñëpp seede ngeen mu ni rapport moo ma téye rapport boobu moom mu ni mi ngi ci loxoom mu ngi woon sax ci téléphone am ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi ne ka jàngul wala bu jàngee tamit xamul bu xamulee tamit nit ku bon la parce que nit ku bon mooy xam dëgg xam li mën a nekk di wax safaan wax li mu njëkkoon a wax moo gën a yanu maanaa ci ku jàng que rapportu e moo gën a yanu maanaa ci jàng parce que IGE mën na def rapport jàpp ma mais IGF mënuma jàpp parce que bokkuma ci champ d'activité ca moom def na 15 ans impôt et domaine moom nee na ENA la génne moom nee na ministère des finances la bokkoon kon mënta bañ a xam loolu mënta bañ a xam loolu loolu di indi beneen firnde pour wax ñi nga xam ni dañ koy topp ca naan xaw ma mu sell mi ca yàlla rek tax donte mën nañ ko def de bonne foi tey ci kàttanu yàlla am nañ firnde ne ko Ousmane Sonko du waxkatu dëgg tribunal àtte na nee na du waxkatu dëgg diine ji tax ñu topp ko ak bi tax ñenn ñi yaakaar ko nee ku ñu mës a daan ci ñàkk wax dëgg ci kuréel lu mel ni tribunal matatoo seede ku matul seede ci lislaam matoo njiit ku matul njiit doo laaj réew mi kon donc yéen ñi koy défendre ca naan yàlla moo tax waxuma nag ñu yam laxdar yu ak risaala rek du werante borom gi ñu jàng laa wax dem leen diine ku fen ñu établir ko kuréel dëggal ni que kii wax na dara ca fen la matatoo seede mënatoo nekk témoin ci dara diine dàq na ni yow mën ngaa seede dara tey Ousmane sonk bu dee ci diine lañ ko teg matatul seede ku matul seede doo jiite ku mënta jiite doo jiite réew mi moom bu jàppee ne que garde na éligi éligibilité diine dàq na ni que mën naa jiite bu jàppee ne ni que tuumaal baayu jàmburu jëkkëru jàmburu yaay jàmburu ba pare di dàqante ci ay gër di football ak naan ay dem naag demuma woo ay nit ba ay nit gaañu ci bu jàppee ni que rëcc na ci loolu garde na éligibilité gardewul ngoram donc tey Ousmane Sonko fenkat la Ousmane Sonko amatul ngor Ousmane Sonko amatul dignité foofu lañ tollu tey loolu moo tax ma sant yàlla parce que man dimbali naa sama njaboot ba setal sama der dimbali naa sama soxna samay xarit samay àndandoo samay rakk ñi ma àndal ñi ma wóolu bañ xam ni ko wax ji amul waaye tamit dimbali naa sama réew bañ gis ni que kii ñu yaakaar du waxkatu dëkk ak ku mën a far ci moom ak ku mën a bokk ci moom ak wàll boo bokk ci moom tey Ousmane Sonko waxul dëgg léegi nag dinaa tënk tuuti jox avocat yi bu fekkee ni am ngeen lu ngeen di laaj damay fàttali ni que am na ñu bari ñoo xam ni ci ci bëgg lu baax ak bëgg jàmm dañoo yaakaar ni que waroon nañ maa woo doon ay kilifa pour naan ma retirer plainte retirer lii retiré lële wallaahi du ñàkk gerse du bëgg a bon du soxor amul benn problème personel entre man ak moom dafa di dama war a sàmm sama der dafa di ngor ngor moo gën a foor bakkan réew mii ñu nekk avant diine di fi egsi ci ngor lañ daan àttewoo réew mii ñu nekk avant diina di fi egsi ci ngor lañ daan àttewoo te ku jàng xam ni que bari na lu diine nangu ca ngor nanguwu ko donk ngor moo ëpp mu gën a ndaw Ousmane Sonko nag deseetu ko deseetu ko parce que ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg a toroxal mu woo ay doomu jàmbur lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni ko gardé na éligibilité léegi ñi ko toppoon di ko défendre ci loolu ñooñu yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte mënatu ko jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi bi moo tax ma ni jeexagul beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis yàlla dañoo teral te ñu dellu ginnaaw ci ñëw ñi ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ni ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce que moom dafa am ay dafa am ay capacité yu ñeneen ñi amul ma ni ko man bi may xale moo tax xale looy def ci kanamam yaa ko def te di fàttaliku ni ko xale ngay yar man bi may am juróom benni at 1982 loo xam ni tey te ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàtte na ko fàttalikuwuma vingt 82 dañu jàpp sama bàpp aéroport parce que dirigeant grève la woon temps yooyu ku sant Seck euh, kii kii Seck te dëkk euh, non waaw kii Assane Seck papa yi ministre moo nekkoon moo nekkoon ministre des télécommunications et des transports ñu jàpp sam papa parce que dafa bokk ci ñu doon jiite grève temps yooyu boo déggee ambulance wala moto tombe mort ngay fëgg say nopp ñu wax journal ni jàpp nañ Mbaye Niang syndicaliste à l'aéroport mi ngi ca kaab ba mu doon événement bu rëy Jurbel nit ñi di ko wax ba ma xamee sama maam la mu wax sama papa ca kaso ba ci laa xam ni àddina amul dara lu gën dëkk àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu parce que dafa dem fekk ko après la comprendre ni que sama moom problème am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am sama maam egsi ni ko bu fekkee dëgg la fii deewal fii bul génn de na fa dee ñi la wóolu ba indil fi bu ñu la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yare man loolu lañ ma yare lu dul dëgg rek du leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko 29 milliards lañ laaj démb dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma ku yàlla wax ni que dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dinañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lool donc lépp luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe soxla ci ñaar moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni ku ko jaay sax doo ko amaat moom la dignité moom moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee moo dee léegi ak sa ngor moo gën dund ci ñàkk ko